dañ ko raté li nga def ci yoon wi te kat ñun yoon ko dogal waaye yow ka jàmm wàcc na ndax léegi nga dugg ci jumaa ji ñun dégluwuñu kenn Serigne Touba rek la ñuy déglu Touba booy dem une heure une heure de temps ngay indi dëkk bépp di ko defar te ñun du ñuy dof yàgg nañ ñaanal bi ñu dogu ki mën a ñaan mën a xëcc mën a dogu ci moom nga jëm léegi boo demee wax ko ni nga bëgg rek boo ko waxee. jël ndox moom mënul dara amul dara xamul dara yow yaa mën yow la réew mi wóoru teg la fi yàlla teg la fi yaa koy jox ay directives yaay clé de voûte de toutes les institutions yaay définir la politique de l'État dans sa globalité yow yaay yor le budget di ko di ko lu ci waay def yow la kon bu defee dara yow la moo ñu defal tànt bi jar na ko 30 millions yónni fi xaalis say xarit yoo xam ne bëggul